Gaston Mbengit wax ji muy wax ci géwal Gaston sama maga ñoo bokk bàyyi xamante nañ bu baax mais du sama modèle moom politiqueul politiqueul moom xam na ci lan lay dund bokkunu lu nuy dund man damay politique je suis un homme politique du ma ni cëb jàpp fee ku nekk ma yóbbu la fee ànd pour ay affaires yenn yi wax naa ko ko moom tey ni ko dégg naa lu ñuy publicité mais dama laa ruus ruus Aminata Mbengue Ndiaye ndax sama manqué mais kon dinaa la tontu mais nag nee naa ko mayatuma la nga taxaw ci benn rajo tudd sama tur bu dee da nga am diil yoo xam ne da nga ko def amee problème yoo xam ne peut-être Farba ku koy réglé wala ñeneen na dem réglé ji ko ak ñooñu man je n'ai aucun problème aw ma problème politique aw ma problème mu xaalis bay dugg ci lu ma xamul 17 milliards laay géré au niveau du parlement de la CEDEAO fukki milliards ak juróom-ñaar nañ dem contrôler leneen li bu ko weddee maa moom nañu dem bind of nag ku nekk wax li mu am ci alal ak fu mu ko jële loolu loolu laa ko woo nan dem bind ku ne li nga am foo ko jële kañ nga ko am yëg naa ne jënd nay tool barki démb jam ñaajo ci benn xaritam bu bu daanu peut-être xam ne ci régime bële la bokkoon du ma tudd turam pour suturaal ko ndax ci boobu lay doog am tool bërki démb man nag ay tool dama ko am yàgg ami tool <laughs> ndax am naa pexey mën a ami beneen bi engrais yi muy tudd na wax engrais bi fu ñu ma ko doon joxe ku ma doon joxob engrais na ma ko wax na ko génnee bu dee dañ may joxob engrais ma je suis pas au contraire man maay jaay état bi bu soxlaa engrais ma jaay ko joxal ko ko ay nit xanaa kon loolu la dégg état bi yoral na ma engrais boo xam ne maa leen ko joxe fayaguñ ma ko kon loolu li muy dugg yoonam da cee nekkul mais li gën a gàtt daal mooy ñuy wax bul tontu farba dama ne farba nit la mi ngi wuti milliard di ko def ci poosam di jéggee moom i frontière xaw ma day blanchir xaw ma lu muy def loolu du suma problème waaye amul sañ-sañu di ma tudd ndax sequnu loolu président Macky Sall waxtu wu ma amee ci moom lu ma war a wax critique dinaa ko def waxtu wu ma ko waree am moom mënta teem a critique mais dafa waroon nag bi nga xamee ne ñoom waa PDS ñi ngi dóor ci kawam mu défendre Macky Sall mais booba gars yi PDS yi la moom la lëkkaloon noonu boobu wax na ko ñoo ñoo dooni xaritam lu tax mu làqu ci ñoom mosu leen a critiqué leen a critiqué loolu mooy wax bi il n'a jamais critiqué ñooñu kon bu toogee ba man mii défendeur défense Macky Sall toi bu nekk ma toog defendre ko man la naan bu attaqué parti bi wala Macky Sall ban attaqué parti bi bu amee foo xam ne day ci kiñ ca ngañ doñ ko wax te bokk ko loolu laa wax ça va mal à l'APR loolu laa wax et je le réaffirme kenn ci ñi xeexoon pour APR ñëw ci pouvoir bi ku kontaan mbaa bariwul ñu néew lañu ñi kontaan nañu wax ni kontaan nañu loolu rek laa wax et ça je l'ai dit au nom de tous les militants nañu seetaat nu ñuy def ba mën a defar suñu parti bu dee bëgg nañu suñu parti yàgg fi je pense que loolu moo doon essentiel li nga xam ne moom laa waroon a wax éclairer ko euh, nekk seen disposition merci